Nous avons une fi société direction générale nous convoqué parce que avons un euh, problème avec les prime de salissure Nous été réclamés parce que prime de salissure les travailleurs général générales nous avons tenu convention Nous nous bokk bañ nous nous dossier au tribunal du travail parce que quand la a fait la justice pour me régler ce problème donc euh, loolu moo ñu fi indi tey daal léegi aussi fayoon nañu prime bi parce qu'en en première instance ñun ñoo gagné léegi tey ñoom ñu ne ñoom def nañu appel ñun dañoo wara a rembourser prime bi et xamuñu ci yan appel la ñu war a mën rembourser prime boobu waaw prime bi nga xam convention mécanique générale moo ko jox les ouvriers de la mécanique générale nan nga war a mën a prime boobu parce que di ko di ko rembourser ñun lu exiger mooy prime bi mu figurer suñu bulletin de salaire te ñu fay ñu reliquats des. droit travailleur Mon lañ salfaañewaat tey loolu moo leen moo leen fi andi mais soo xoolee euh, seen Pastef ak seen takkute nga gis ñi fi teew tey yëpp nga xam ne que euh, lu am importance la euh, ci ñoom moo tax ku ci nekk da nga ne di nga tribunal ne ko jot convocation yi et que dinaa ñëw taxaw pour défendre samay droit ci kaw loolu lañ ñu jël ñun ñu ngi doog dugg ci dossier bi parce que dossier bi en première instance euh, mandataire syndical bi Robert Mané nga xamné ne ñëpp xam nañ xarañam ci liggéey bi moom moo euh, yoron dossier bi am ci ndam bu ñëk euh bañu commencé di fay travailleurs yi entre temps ñom ñu exercer sen voie de droit moy ñu def appel bi ñu appel cour d'appel infirmé ko Bim ko infirmé des na benn voie de recours moy cour suprême mais demaguñu fofu ñom dañu yakamti ñew pour que ñu dello leen xaliss bi nga xamné ne travailleurs yi percevoir nañ ko euh, ci sur la base de l'ordonnance bi nga xamné mom le premier juge bi rendre ci lool lañu né jot nañ ci benn dossier dossier bu xaw a takku dossier bobu nak dañ ko wara jangat ñun ak ñi nga xamné ñoñu yebal ak ñi nga xamné ne nekkon ci dossier bi muy mandataire syndicat syndicaux yi taxaw euh, suñ ci waxtaanee ba pare euh, ñu mën a organiser suñu défense fi euh, façon bu mucc ayib loolu moo tax ñu ne juge bi nañu may date boo xam ne date utile lañ koy wax maanaam date bu xaw a sori boo xam dinañu permettre ñu gisee ak suñuy euh, client waxtaan ak ñoom gisee ak ñi nga xam ne ñoo ci dossier bi en première instance waxtaan ak ñoom pour que suñu suñu défense bi ñuy mën a bi organiser mu nekk défense bu mucc ayib parce que dama jàpp ne dans ci secteur d'activité, nous sommes mécanique générale euh, prime de salissure dañ ko organisé le code du travail C'est à dire nous nous ñu devant un tribunal pour débattre xam parce que c'est une question d'évidence. Nous xam nañ ne que code du travail daf un secteur d'activité. Si yoo droit à certaines primes et c'est le cas